duñ fa ubbi loo xam ne 3000 personnes ñooy toog kenn ku nekk yore machine ñu def travail à la chaîne. dama ko wax ci benn télévision nit ñi jàpp ne wax couturier laay wax man du ma ñaw kat ñaw ma tey ak suba man li ma gën a mën. Hmm. toog ñu may toppatoo ma yor sama kurus lijjantiwu ma leneen. mais su ma amee xalaat xalaatu dem ci kanam c'est-à-dire boo ko amee. exactement dul vulgariser ko dans les médias mais wax ak xale yi. Hmm. parce que tey association de migrants yu nekk yu bëri wax naa leen nañu suivre wax ak xale yi pour ñu gën a gëm ne Sénégal bi am na liggéey buñ fédéré wo ñun si suñu gannaaw suñu état accompagné motax tax mënuma gëm sen financement yooyu ñu jox jigéen ñi xam nga man tay kon kuma ma financer do ma jox 25000 parce que li ma bëgg def du loolu non seulement état yi buñ ko war nañ ci dimbali mais Il y, a des, il, y a, il y a des chefs d'entreprise au Sénégal, il y a des industriels au Sénégal. Est-ce qu'il y a un espoir sur l'UNUMEL Est-ce qu'il y a un état C'est forcé. Direction bien, c'est forcé que nous Parce que c'est une migration buntu xam-xam la italiens yi tay tok diñu accueillir ñoo gëna accueillir nak ci union européenne mm-hmm. mm-hmm. non lañu ñu won woon états-unis nek ci ay batu bay tour photo yi la fàtte indi mm. <laughs> non le français yi ak europe màbbe won wut si le maghreb arabe bay tour ci camion yi ak bateau yi c'est le cours normal de la vie mm. gis nga Cap nu mu mel Cap mm. Verdien de l'extérieur ñoko tabax les israéliens yi gëna puissant ci monde bi les juifs mais ñom amuñu un tiers de la population seen terre ñëpp a ngi ci àll bi nit da nga am droit ni yonent bi aleyhi salaatu wa salaam defoon da nga am droit fi nga nekk bu la arrangé wul nga dem feneen droit boobu nag ñu dañ ci war a puiser ba pare am fital suñuy gouvernant fital leen ñu ñemee jàkkaarloo ak union européenne wax leen ni que ni mën nañoo nekk parce que man ànduma ci ambassadeur de France taxaw di wax ni en cinq mois sept ministres français sont venus au Sénégal mm. man tong tong laa ci gis ak jël sunu alal. intéressé ñu leen ñun mais li ñu am moo leen intéressé. Mm. il faut savoir négocier dans ces moments-là. très bien le président Sall est parti. Mm. je souhaiterais qu'il puisse lui. savoir que non seulement porte-parole réewam la mais porte-parole Afrique de l'Ouest la mm. nit ñi dañ ko yaakaar mu xam ne war na tey discuter les yeux dans les yeux avec François Hollande xam ne tey suñu suuf moo barkeel suñuy xale ñoo fi taxaw ñoo nekk ay jeunes am doole te suñu euh, avenir Afrique la nekk mu peese poids parce que gëm naa ne nag moo gën a doon góor Hollande. très bien Alaaji Sall bi Ndiaye. vraiment mu doon mu doon mu doon euh, euh, waxtaan wu am solo xam nga li ma ci gën a intéressé mooy ñu mel nii dañ leen wa état daf leen a war di xëcc seen wet di leen laaj seen xalaat ñuy wax. parce que xam-xam yi fi génne yëpp. bu ci nekk waaw consultance. consultance. Mm. <laughs> non c'est vrai parce que xam nga lan laa kon nekkuma parti bi parti bi mooy gouverner fee laa bokk. du ma ñëw même bu ma woowee du ma ñëw déedéet da nga war a jariñ sa réew waxoon naa ko fii sallallahu alayhi wa sallam neewoon na hubbul watani minal iman bëgg sam réew xam-xam d'abord bi nga xam moom nga mën a jariñee sa réew mënoo jël ubbi sa sa poche sa poche ku nekk sénégalais bu nekk nga jox ko donc xam-xam nga mën a jox sa réew donc mooy li muy développé nii bu ci des immigration waxoon naa ne fii yokku wërsëg dafa wàññi frais yokku wërsëg dafa wàññi frais boo tukkee ñaar nga mën a am soit di nga am xaalis wala nga am xam-xam mm. te yaakaar man bu ñu ma tegoo la a ah, xaalis ak xam-xam xam-xam laay jël parce que xam-xam boo ko exploité di nga am alal ji ñu la doon jox di nga am nu ko triplé di dem donc immigration dafa am benn moment boo xam ne yow mi immigré da ngay naan man li may wuti lan la d'accord d'abord su ma ko jotee lan laa ci war a def mm. d'abord mais fi mu ne nii boo dee xool boo demee tey ci fu mel ni Italie wala fu mel ni France da nga may fekk ay boy yoo xam dañ naan dañ naan man ma doon mm. amoo métier da ngay dem lan nga mën a jaay ay lunette ay montre mm. ci feu rouge yi ngay taxaw mm. sedd bi di la bëgg rey wala ñu yóbbu la ci àll boo xam ne tey jii sa àllum ngaay sama maam fa mu dëkk ngaay mexe ngay witt nga nga witt ay raisin ay zéro degré c'est mm. xam nga donc da ngay dem boo xam ne benn moment li li li madame Ndoye wax d'accord njari suuf saa ngi fii arab yi ñoo njëkkoon xewle daanu tubaab yi ñoo xew léegi Afrique ñoo xewle nanu xam ni li ñu am lan fi ne ne Afrique xew loolu moo neex suñu borom d'accord nangu nag dafay jël cërub bañ mhm. africain yi dañu xam li ñu am lan la te suñu gouvernement yi suñu président yi suñu njiit yi dañu am fit dëgër jàkkaarloog tubaab bi am solo tubaab nit la comme yow d'accord bu dankay jox la nga dank delloo ko nit <laughs> très bien merci beaucoup Alaaji Sall Biigui Ndiaye ba tey ñu ànd ak suñu gan mu di euh, madame Ngoné ndooy mu nga xamante ne nekkoon ministre ci jamonoy euh, maître Abdoulaye Wade donc ñu gis jéego yu am solo yi nga xamante ne jot na ci liggéey mais tey euh, gis nañu les Sénégalais de l'extérieur ñoom tamit vont désormais avoir li nga xamante ne mooy seeni député ci parlement bi est-ce que jaroon na ko am na solo mais daal de l'extérieur yu nekk en très bonne position d'éligibilité dans tous les partis d'accord Amadou Siré Sall du ma weddi donte tey APR la nekk nekkatul PDS d'autres yi ma nekkaloon ci Sénat bi duñu ma weddi on a toujours une représentation parlementaire des Sénégalais qui sont à l'extérieur mais man li ma gën a ñor tey c'est comment tirer profit de l'actualité bi nga xam ne suñu gëm suñu diine ak suñu nekkin ak dogalu suñu borom bi may nañu ko tey mooy Afrique particulièrement Sénégal c'est moy espoir au monde Vous gis nga cour bi ñuy def parce que tous les pays occidentaux font la cour mhm. le système international lui fait la cour mhm. parce que Sénégal il la mu sa mhm. c'est-à-dire que la boo xam ne fi tolloo tiim nga Afrique te mun nga ko jot fu nekk c'est pas pour rien que fii la porte d'un retour par Gorée yàgg na ñun d'abord loolu mooy suñu njëkk-njëkkal avantage suñu deuxième avantage mooy dëkku diine la mais dëkku vertu la ku a sa bopp rek nekk sénégalais kase am nga vertu nekk nga nit ku baax. yàlla dimbali nañu ba nit ñi am nañu sens du discernement ba mën nañu xam nañu seen valeur ba Sénégal nekk na un pays stable. ak yooyu moo tax fu nekk ñu fay woowee sunu président bi. Mhm. ñun dañ ko war a bénéficier woo am nag ñu baax Sala Biige Alaaji Malick Si Serigne Touba ak ñeneen ak ñeneen. wérd ba dem ci suuf mhm. seen yax yi nekk ci biir suuf nag indi tey pétrole indi zircon indi lu ñuy seete. Mhm. parce que man dama gëm yàlla te hasard amul. Hmm. na mu defaloon Arabie Saoudite ñu doon ay xeeri kase. soxna si nga xam ni moom la ñuy dawal tey zam-zam toog ci ay xeer di faxaar boroom këram ndox miy génn ba mu naan ko zam dalal. noonu la fa pétrole balle ba Arabie Saoudite am lu ko neex suñ toogee tey nag ñun suñu diine sell parce que am na fi nag. nit ñi hmm. julli nit ñi gëm nañ ñaata ragal nañ ko. yàlla may ñu nit ñu baax ba tey mu wéttali nit ñooñu teraanga. ñun dañu am devoiru bañ a yàq loolu mooy taxaw liggéey ko nag te bañ ko tayle na Sénégal di la séeréer di bàyyee wax ne ànd naag sama investisseur qu'il soit des investisseurs eux-mêmes Abdoulaye dama ko waxoon nag <laughs> président Wade moo ma ni woon mm. il faut dire à tes Sénégalais d'arrêter d'amener des investisseurs que eux-mêmes viennent être des investisseurs au Sénégal mooy bàyyee indi nit ku weex ki rek mu dellu siwaat di amaat doole ci sunu kaw mais aussi wax suñuy état ne bu ñu tegal nit ñi yenn garde fou ndax naxaate la nasaraan bay ñuy nax ci loolu. nasaraan def ñu nax ci ñaari yëf. mu di bi ci njëkk mooy fexe ba contrôler nit di am. tey banque boo fay dugal lu passé

track bi dañu fexe ba góorgóorlu ba nit ñi bo daané la say référence do do amati reference sari ku jóg nga ne accam te te xale bu démé ba amatu fu mu wéeru internet akoy mom nasaran be koy mom kay te kon rër na xamatul bop gorgoru nañ tay ba kilifa diine yi gàkkal nañ leen dañuy fexe ba buñu ben xale buñu dóor ci daara rek ñu def ci bës bo xamné musul am fenn waxuma baxna nak lu ma luñu wax rek waxuma baxna mais dama bëgg nit ñi ar seen bop xamné Sénégal amna alal te jumtu kay te te djublu way la nañ ko valoriser buñ ko yàq benen nax biñu nasaran bi nax à part fexe ba ñun duñu mëna a yoreel suñu bop suñu économie parce que lool moy tax do yoreel suñu bop sa économie tay jëm ñaaji la muy bëri bëri ay hangar sénégalais amuñ fa dara ay jàmbur a ko yore légui boy ñëw fu nek ngay gis ñu ubi ay Auchan Mmh. Les ay Carrefour mmh. ay ay les asiatiques mmh. yi chinois yi français pas les sénégalais pas les africains donc PS Sénégal est-ce que gis na ci que bëgguma dugg ci lool <laughs> dama mais aussi mais aussi dama vous suñu piste de réflexion yéxa a bi yéxa a bi tamit Au dernier moment au contraire dernier moment au contraire ah, Ablaye du que tax Sénégal gëm dañuy rek ñun rek la dit. mooy suñu jamono bi mu fi nekkee ay cité kër gi la xaw ma. ay kër fu nekk nit ñi tabax ay kër di jënd ay oto gëm seen bopp salon de coiffure yi dox liggéeykaay yi dox amul woon avant hein. Hmm. avant dañ jëloon Sénégalais bi tënk ko ci salaire kenn amul woon entreprise kenn amuloon woon idée d'entrepreneuriat ndax baax na après ndax mujjee na am ay dëng-dëng loolu leneen la. Hmm. mais au moins ni ñi commencé woon nañ gëm seen bopp. commencé xam ne wane nañ yoon wi wane yoon bi. loolu dafa am rupture suñu wanee yoon bi nag soo gisee mu am rupture mooy li ma la ne nasaraan bi dafa yaa rek bëri dañu indil ñu ne loolu la ko indi woon dañ doon yàq xaalis bi dañ doon def lu jaaduwul dañ doon nangam comme li nga wax léegi mm. indi ay traité bi bridé waat ñu te xam nga luy bridé mm-hmm. mm-hmm. mooy fas buy daw ba xiin nga téye nga laa ko mm-hmm. ne ko bul demati parce que bu ñu continuer woon noonu sénégalais ñooy moom seen seen réew ñooy investiral seen bopp ñooy doxalal seen bopp Alors souvent, il mhm. faut le remettre. Ça, je ne veux pas trop couper le fil de mon idée. Donc Donc, nous faire mon nekat. Nous avons contrôle. Nous avons contrôle. Nous rigueur, justice, nous avons mais éviter. Nous avons que pas trop tard, trop tard la jeunesse est porteuse d'espoir la jeunesse est corrective et la jeunesse c'est elle-même Moi, mooy sukkandiku ci li passé woon. mais li nga wax ni ci instance de décision yu même pas même pas man je suis dans aucune instance de décision te mal, je ne li pas wax ñëpp koy est-ce que du faiblesse. mais mais changement de système bi par exemple ci réflexion yi nii mais ci décision yu mag par exemple suñu njiit yi njëkk ci ñi gérer suñu institution. loolu ce que je veux dire. ngay di fexe nag ñu dem ci élection député yi parce que instance le parlement mooy décider. C'est bien heureux que ñu liste de liste euh, dafay am ay liste qui est indépendante le ñuy doon du ñu ci parce que vous les lay déglu euh, souvent euh, bu les lay déglu ngay on a comme l'impression que ñi ñuy par exemple xamuñu yow li nga xam ak orienté parce que tamit tay ñu raw li ma xam mais lan mo waral tay par exemple xana dañu ah, dañu gëmul suñu réew mi je ne sais pas ah, ah, bëgguma dugg ci affaire yu njiit comme li ma wax mais baax na aussi man je donne juste des réflexions des pistes de réflexion hmm. mais nak yoy ma wax mom la gëm ci constat la en fait té ci lool lay dox te gisoo fenn fuñu taxawé ci yoonu dem ci lool gisoo bon ne me faites pas dévier de mon chemin ne me faites pas dévier de mon chemin mon chemin c'est quoi mon chemin c'est quoi tey ni ñu fexee daal ba brider économie bi freiné ko nañu delluwaat ci loi yi assemblée nationale am fa une ligne radicale boo xam ne farul ci benn parti. mais loolu amul. dafay am parce que on a. mais jamono ji la loolu amul voté nañu ba pare ni nit mën na def liste indépendant bu leen sonn liste yaa ngi de. Hmm. ay liste indépendante dina fi nekk yoo xam ne. Hmm. du ñu far ci benn parti. kon mën nañu la si parlement la ñuy nekk. ah si kanam la nekk nekkul suñu gannaaw. Hmm. <laughs>

parce que ci loolu laa doon ñëw ñaari mandat yi ñuy wax gëmuma ko hmm. ay cinq ans gëmuma lool xam nga lu ma gëm suñu doxee ba xam ne Sall Biigui mi moo doon suñu président te doy nañu nañ ko teg place am te ne ci suñu place ndax kenn ku ne am nga loo war a def li nga war a def mais nasaraan bi teg nañu ci démocratie wu élection kase ba kenn ku nekk yaa ngi yàkkamte pousse sa morom pour toog. ñu gis ko aussi taluñu liggéey. d' africain yu bëri ñu xam ne eh, toog nañ fi lu mat ay 22 ans gisuñu lu ñu def. loolu leneen la loo xam ni man su ma ko bëggee traité waale damay tardé man en tant que sénégalais. <laughs> te dama ne sànq Sénégal dafa am avantage stabilité. bu tax ñëpp di ko xool te dama bëgg conserver sama avantage. conserver sama avantage mooy fexe ba am stabilité fexe ba samay nit xam li may def parce que réew moom mënoo ko développer moom te déggoowoo ak sa askan. alors Nicolas ce qu'il faut saluer ci li ci ci li ministre wax mooy par exemple par exemple tey tey tey tey quand même ah. euh, il faut le dire mm. da ngay soxla am invité boo xam te day ñëw ci discours yoo xam te ne miinuñu ko woon par exemple ci suñu au parce que li muy porté nii tey on aurait aimé que suñu leader yi que ce soit de l'opposition ou du pouvoir

nit ku nekk xanaa bëgg nga avancer. te nit ki fan nga war a avancer sa réew. tey ji boo demoon tey ba France tabax benn immeuble bi gën a rëy amul sens. boo demee dañ lay dañ lay mbankaat indi la immeuble boobu ñoo fa nekk ñoo koy jël te boo ko defee sa réew waa réew koy jariñoo nit ki foofu ngay xalaatee. d'accord li ma naan nit ki mun nañ la toggal. Mhm. mun nañ la ko taajal. Mhm.

soo demee fii Medina. ah waaw ñooy solo da carax carax coquette yi ñoo koy solo waa Guinée Bissau waa Guinée waa Mali sénégalais du ko sol ndax complexe dañuy naan uude la. am na Rufisque ñoo xam ni une famille ay bët yi ñuy liggéey ñoo koy defal majorité ñoo koy defal ay ay kilifa. yoo xam ne tey bëgguma tudd turu kenn. dëgg la ñooñu waroon nañu mën a solo tam Afrique de l'Ouest parce que notre marché c'est l'Afrique de l'Ouest. Mm-hmm. ce n'est pas nous simplement. donc apport bi sénégalais yi di indi si réew mi moi équilibrer le pays. Hmm. parce que famille bu ci amul woon euh, xëy na lu dul taawam su demee bitim bu dinañu dinañu dinañu consommation la. su ko nit ñi consommation bi rek la mais développer Sénégal amul banque de Sénégal de l'extérieur ah, c'est dans les projets en fait. que ce soit un projet. Mhm n'est pas le plus important le plus important c'est que le sénégalais ils ne bitim pas nous ne ñoom war les def banque sax bu mhm. parce que quand nga kan le ICS au Sénégal mhm. les producteurs agriculteurs indiens mhm. Ce n'est pas l'état indien c'est des indiens une coopérative agricole. au Sénégal. ils ont investi notre notre marché mais si je reviens donc à cette manne qui entre. qui mm. fait quatre fois l'aide au développement. quatre fois. Mm-hmm. li ñu obligés pas jox ba mm. politique parce que nous jox benn rek côté. mais donc lool bu banque cest à mécanisme là d'investissement li alal bi fay jaar moy crédibiliser banque bi moy permettre société yi bëgg liggéey am matière à investissement. d'accord Lool nak di ngeen mos a invité banque yi mu wax la la. très bien Adjara et ça permet d'investir, donc ça développe le pays même bu dee une famille la jëm et ça permet d'économiser. parce que tay buma ñaané man sama dom bi nek extérieur je souhaiterais acheter un euh, par exemple un écran plat un mètre ñu né écran plat bi mu ngi jar neuf francs. Mhm. xëy na mu yónnee ma un million pour 980 000 francs Si vous avez 1 million vous avez tout ce buy des boo xam vous avez na bis boobu ak noos laa koy jënde te vous avez ci banque vous avez le strict minimum li ci des dama économiser c'est-à-dire ce sont de petites choses qui font que les banques puissent vivre mener les lebal mener investir ci donc il faut des institutions financières qui régulent le flux euh, financier bi génn ci réew di dugg ci biir réew mën a am leneen mhm. lu muy jur euh, bi ñu dégg genre femme yu mel ni yow du wax donc est-ce que tey mën nañ am espoir aussi gis benn jour benn femme euh, présenté comme ci élection yi si présidentielle dina doon xaw ma ñaata ci personne bu ma bu may naan fu ma toll looy xaar si réew mi mhm. man dama bëgg ñu xam ne réew mi c'est ce sera toujours un ensemble mhm. du doon mukk benn nit parce que benn nit dafay soxla ko ko defaral réew mi li mu gën a soxla tey mooy dal nit ñi xoolante si bët li ajaratu dégg chimère daan wax dugg sa ruq man a kan xam ni suñu réew dafa war a développé. te mm. ŋàññante beeg xuloo bi faju ko. Mm. il faut que diib tëgg am na kooku kooku waaye am na dang-dang. ce que soo am nga si man de moo tax may dox. parce que jàpp naa ne sa dos boo gis diine la te dox ci diine la dama war a def sama wàll ba fu yem. il faut qu'on ait à l'Assemblée nationale du Sénégal une ligne radicale bu bokkul ci benn parti mën a liggéey lu dul pour intérêt réew mi ah. te bu boobaa nag population yi bañ ko naan sama ordonnance beeg sama nangam bi parce que bu bëggee jënd livre yi mu war a jàngee xam-xamam salaire am du ci xaj. jamono boobu ci assemblée nationale ñu wax euh, assemblée nationale yooyu wax euh, ligne radicale. mais li ñuy wax dañ naan ay majorité mécanique wala ñu wax cohabitation. parce que amul ligne mais bu fekkente ne man wóor na ma man Ngoné Ndoye li may défendre ni laa gëm suma ma la laajoon baatu askan bi ba dem assemblée nationale man fi moy sama assemblée non, lay continuer. kon il faut ñu dem ci mode dara du influer am ci. Euh, c'est déjà il faut tamen ñu dem ba fofu ñu li ko même pas parce que de toute façon ils ont demandé ils ont ouvert les listes nit ñi dañ leen di top ci li fi ne ba ba moy soppeku jamono boo ne damay xaar ba mu pare ma doog a ñëw dox li fi nekk ci ngay japp di dox ba ba muy soppeeku parce que bu yow rek na nga nangu muy sa morom. Hmm. li bon mooy nga ni man rek la du keneen. Hmm. mais man xam naa ne bu man dina doon sama doom ci hmm. donc je me bats pour que mu dem ci kanam. mais naka ngay battre bëggoon naa mu wax ñaar ba ñett parce que sànq ba léegi bu ñu waxee nga ni yow doo politique mais wax ñu ne ñu par exemple. yow sa la wax suba. Ah, ah, mais moom ngay dund. exactement moom a wéyale. ci lëkkaloo ak ay nit donc demain. waaw moom laa waaw xam nga doo tax ma ubbi fii sama soxla. <laughs> Ah, donc demain incha allahu taala su ma toogoon ba ba am lu may def di nga ne tiens je l'ai écouté et ça ça m'intéresse mm. et ça c'est très important. D'accord, très bien man dama bëggoon ñu dellu si waat ci euh, li nga xamante ne moom direction de de direction au Sénégal bi nga xamante euh, des Sénégalais de l'extérieur. est ce que jàpp nga ne mën na nekk solution pour mën régler problème yi. waaw xam nga euh, man bi ma fi nekk ministère la woon te jàpp naa migration tey dafa doon loo xam ne mooy la problématique mondiale de développement ci le développement du judo, bi may énumérer cinq opportunités yi.

ba sax état daf ciy am ristourne mm-hmm. parce que état mooy garder sa sécurité sociale mm-hmm. le le Sénégal aussi doit s'organiser am ay école de formation yu muy dugal ay xalé yo xamné sen seen agul euh, bëgg nañu doon ay bonne jàngal leen nursing jàngal restauration mm-hmm. tu sais que les Sénégalais sont les premiers aux États-Unis ma ci nuyu soxna suñuy wax ngone job boo demee ci ci ci bâtiment yi nga xam ne fa ñu convalescence c'est-à-dire ku ñu opéré wala yooyu tu fais 15 jours aux opérations xajatoo ci hôpitaux yi am na barab yu ñu lay yóbbu sénégalais yi fa ëpp ñoo fay ay infirmières ñoo fay suivre nit toujours ñu ne ma ubbil école nursing au jàngal ko Sénégal école nursing aussi pour les vieilles personnes école nursing pour les bébés des des des des écoles de formation en restauration d'accord li ñuy wax ci migration bi pays arabes, pays arabes Saoudite c'est parce que n'a pas préparé nos salles koo xam ne fii la doon toog rek yor émaayam yor ay greffage am nga yeewu suba teel ne ko demal liggéey jànq du ko mën cooway bëri rek mais soo len formé ci lolu wu état war na mën négocier. comme feraient les agences permettre len ñu liguey donc ces questions question bi sax defuma ko dama doon wax rek opportunité d'emploi donc euh, je suis je suis intéressable quand je parle de migration et de développement. ce pays on peut le développer très facilement. d'accord merci beaucoup euh, madame euh, ngone Ndoye donc tay mom lañu amone ngir waxtane ba tay ah du du dem fi lay tok ak ñun and ak ñun ba toi-même tu sais jeex ah, donc mu nekkoon ancienne ministre nekkoon ancienne sénatrice donc gis ngeen jéego yi nga xamantene jot nako def nekkoon maire Rufisque Est tey mu ngi taxawal kuréel bu am solo boo xamante ne rek lépp loo xamante ne day tax mu dem ca kaw ca kanam ci lu baax comme ni ñu koy tàmm di waxee donc tout de suite sans plus tarder nous passons à high tech avec Abdoulaye tey gis ngeen li mu nar a waxtaanee mooy VR VR box mu ngi nii la réalité virtuelle la réalité augmentée c'est tout de suite très bien donc euh, VR box euh, VR box nous euh, njëriñam ni xam na am mais bul def lo parce que les loo ciy def étape par étape damaa bëgg ñu gis ko ah, réalité virtuelle bi réalité augmentée ok comme ni nga ko waxee rek tu si bien introduit et déjà wane nga ko benn casque bi nga xamante ni samp ressemble plutôt dañ ko doon gis ci film extraterrestre yi wala ñu koy gis ci tubaab bi donc ma ne pourquoi tey ma indi ko pourquoi pas tey ma indi ko proposé ko Sénégalais yi d'ailleurs j'ai préparé des vidéos yi nga xamante ne ñoom dinañ gis mode de fonctionnement bi mais pourquoi ma tànn indi affaire bi dama ko bëgg a tàkkal fii d'accord soit kenn ci plateau bi ni mais y a pas de souci waaw mooy bi nga xamante moom moo gën a nekk bas de gamme comme en général Afrique moom bu ñu fi envoyé ay produits technologiques ñun bas de gamme bi la jox donc bii nii c' un masque à réalité virtuelle pour smartphone. te bii ga bas de gamme la ni. bii mooy le plus gamme bi gën a ndaw. bi gën bi gën a suufee. parce que vingt mille francs lay jar quoi. D'accord. accord donc tout un chacun mën se si procurer donc. voilà naka lañ koy utiliser. ginnaaw ñoo koy gis ci vidéo mais ñu gis ko ci sa loxo exactement comme ni ngeen koy gisee nii dafa am benn genre cache donc cache bi nii ci ngay c'est sa téléphone donc dafay dox en Android dafay dox aussi euh, ak iOS c'est-à-dire les téléphones iPhone donc avant ça il faut en amont télécharger l'application, parce qu'il y a plusieurs types d'applications c'est pour la réalité virtuelle il y a des applications qui permettent de jouer en 3D après ci chronique bi vais expliquer lan jouer jeu en 3D lan une vidéo 360 degrés etc. maintenant cache bi nii téléchargez télécharger application il y a aussi des vidéos, c'est des vidéos en 3D maintenant disponibles, des films 3D. Sur YouTube, vous tapez par exemple vidéo en 3D ou bien vers box vidéo, tu verras des vidéos qui sont sur Google sur téléphone. Tu vois. Légui, beaucoup de les fingers qui accrochent. Voilà. Beaucoup accroché ici, tu vois. Moutogo. Donc, on a Google côté tiroir. D'accord. Ranger vous quoi Google tu vois. Donc, tu as la possibilité. de mettre des écouteurs parce que actuellement yene ngi dégg son bi muy génn ni son bi en mode 3D. man yéen woon na ma sax maa ngi la dégg fu muy jóge. donc tu auras l'impression que yaa ngi ci salle 3D bi diko vivre léegi bo paré nak dang nga koy jël nga sol ko. d'accord tu vois euh, ma ngi ñew solal dang mako bëgg solal mais man man man man man dama ko bëgg solal alaaji la ko bëgg njëkk solal. <laughs> bay ma ñew ci yow. léegi avant nga koy solal alaaji. amna amna haram ay ci na fi deug la ma wax a essayer waye té tey alaaji ñaari. ñaari kii fii quoi xaw ma bouton laa koy woowee xaw ma lan ah. léegi c'est des choses yi nga xamante ni moo lay permettre ngay régler lentille bi fii nii donc parce que nit yi tolloowuñu ay bët am na ñoo xam seen bët dafa écarté wu am na ñoo xamante ni seen bët dafa ni ma koy gisee nii moom bësam daa écarté wu waaw ndaw de ndaw waaw da ngay bàyyi alaaji bi bàyyi ko mais alaaji ma essayé kon kon ma njëkkee non non non ah. alaaji Sall bii film horreur lañ ko waroon defal d'accord film horreur waaw euh, exactement euh, euh, mais garaaw alaaji salaamaaleykum alaaji teel ma ni waa teel ma ni nag may jàppale tamit ma mun la solal nag alaaji waaye li def ah xëy ko nag balaa moo daw plateau oui ma bu daw de léegi alaaj dañoo bëgg nga commenter ñu en direct li ngay gis quoi li ngay vivre nii ñu xam ko tu vois très bien léegi mun nga siggi nga xool ci kaw siggi image mi ngi ànd ak yow ànd siggi maa ngi ci de sa gën dëgg bon maa ngi nii ci benn chambre ah. waaw ngi lal. Euh, bon ak benn euh, coiffeuse <laughs> bon c'est ça ah c'est ça. xoolal ci suuf. sëgal bu ragal sëgal sëgal. sëgal <laughs> rek. non gisuma dara ah. <laughs> li ma gisoon laa gis. Euh, xam naa sax piège ma la. da nga bëgg rek ko dama dama ni montel ko Papa Ousmane. fii ne ku nekk ñam. mais ñoom lii la li waa ji li waa ji jël sifflet gi yóbbu ko. mais jël sifflet bi. sifflet bi da ko for sifflet rek bët bi. bët bi fermé eh? bët bi gis mu ne waa ji fi bii waa ji bii beneen bët fermé waa ji ni ko fii ñëppee <laughs> bu ne waa bu ne waa ji. mais c'est vrai hein. bon <laughs> voilà casque bi. Euh, Pape Ousmane. kii euh, quoi. solo sama Bonardi biir. Ah, non mais Bonardi moom mais quand même c'est efficace quoi. waaw solo lu miin rek ko solo bu yàq kiyam bi. bu yàq sama fiiram bi. non solo lu miin en tout cas c'est efficace. tu vois bii nii bon j'ai fait exprès mu ubbi la benn vidéo boo xamante ni ci benn endroit la.

non si C'est lañ ma la defal ci def. borom vidéo effectivement. exactement voilà comme ça nous plonger directement ci chronique bi. très bien parce que. voilà vidéo exactement. On ben vidéo ni vidéo bi ni day euh, simulation réalité virtuelle mhm. comment ça fonctionne parce qu'il y a ce qu'on appelle la réalité virtuelle et la réalité augmentée la réalité virtuelle une réalité qui te permet de plonger à 360 degrés dans un environnement multimédia bi nga xamante que choisir quand on parle de 360 degrés c'est-à-dire que lu muy gis yëpp da ngay tourner di xool image yu di ak yow par contre la réalité augmentée moi, li ça te permet de toucher les objets actuellement à na université yi nga un peu à travers le monde dañ utiliser pour faire par exemple des analyses des diagnostics Les au lieu ni def ay schéma ci tableau dañ koy programmer ci ordinateur bi de telle sorte que yow boo takkee euh, masque bi da ngay gis comment l'anatomie humaine est constituée cœur bi nan lay def boo defee nii mu tourner tu vois tu es en contact direct avec la réalité am na beneen vidéo boo xamante ni ci kanam vous allez voir ça ngeen gis étudiant il yi léegi ñoom amatul taxaw ci tableau da ngeen di taxaw professeur bi takk kaskam yéen ñëpp ngeen takk seen casque vous voyez devant vous l'image qui défile et am ngeen possibilité aussi d'interagir ak image boobu noonu

léegi ñoom mën nañ créer seen ay application yi nga xamante ni. da nga leen di yàqal de tamit foofu benn côté parce que. Euh, visite 2000 3000 5000 courtier les courtiers. Ah. <laughs> <laughs> par voilà francs yooyu noonu. <laughs> Ah, effectivement dinaa yàqal courtier mais courtier yi aussi. non dañoo war a le monde avance tamit. waaw mën naa waaw léegi xam na man la laa leen proposé. Ah, ñu dem rangu ay ay casque di ko jaayaat. bonne idée. bu ñu ràngoo ay casque di ko jaayat rek nañ jënd nañu am ay casque di def ci application yi seen i ay ay ni ñu koy woowee ñoom mooy am na nu koy woowee de seen matière non waaw euh, ndax amoo matière am na nu ñu koy woowee mooy boo amee boo amee kër quoi boo amee benn chambre euh, salle de bain wala nga am benn studio et cetera am nañ seen benn terrain lañ koy waxee quoi voilà mais boobaa ñu def ko foofu nga xamante ne yow boo ñëwee à la place de visite 2000 5000. On est-ce que est-ce est-ce que que <laughs> c'est ça. tout le temps c'est que le temps perdu ne se rattrape jamais. Mm. Et le temps est tellement précieux. Tu mm. si tu as la possibilité maintenant de rester chez toi et de faire les lépp li nga bëgg a def moo gën parce que léegi par exemple jóge Pikine dem Dakar c'est tout un problème parce qu'il y a des embouteillages y a des trucs léegi nga nar a dem déplacer wu di visiter ay appartement tamit mooy loolu pourtant mën nga dem visiter benn appartement boo xam ne neexu la nga bàyyi ko foofu alors que ñoom bu ñu développé application yi nga xamante ni dañuy def l'ensemble des maisons def ko ci biir application bi ñu jox la lien application bi nga télécharger ko ci sa smartphone nga dugal ko ci sa casque mais tu visites bu la ci neex am na sax la possibilité de cocher pour les cocher directement directement base de données. après les transactions bancaires. Hmm. passe par téléphone maintenant donc à partir de chez toi tu peux faire tout. Le jour bi nga vas dem rek tu vois technologie <laughs> très bien mais troisième vidéo. voilà Tu tamit gis magasin de shopping. Hmm, voilà réalité augmentée je vais doon expliqué ah vous voyez maintenant vous casque casques, c'est des casques euh, yi Microsoft moom développé université bu nek Tennessee la Vous voyez, casque ils sont en contact direct avec la matière tu vois mu squelette bi humaine bi tu vois os bi génn ñu fracture bi tu vois, ça c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. Tu vois. Donc, l'INI, ça prouve l'avancement de la nouvelle technologie. Quoi. Et nous, la technologie, à chaque fois, nous utilisons. Tu vois, mais malheureusement, au Sénégal, je me tout le temps, c'est que nous sommes des utilisateurs passifs, consommateurs passifs. C'est-à-dire, à chaque fois, nous devons des affaires nous contacts pour des certains films, film wala des ordinateurs ordinateur téléchargé des mm. wala internet par exemple Facebook WhatsApp alors que c'est un monde de savoir. tu vois man kérok dama 30 minutes 4 heures de temps yi ngay passé sur Google ngay gëna a 4 ans yi ngay passé à l'école man j'en suis sûr et certain parce que pratiquement li may def autodidacte là. ko donc il faut utiliser les choses ci bi nga xam te ne c'est positif te à chaque fois li may wax fii high tech da koy gis xam waxoon naa leen téléphone yi danger bi ci nekk semaine bi stop vous avez vu les photos de la hmm. kii yi doon par circuler ci internet donc il faut carrément que nit yi di utiliser les choses d'une manière mais foofu aussi dama la dama waxoon aussi naa ko xat parce que des fois aussi dañu jël bopp nit montel ko chaque jour ma posé la ko fi Abdoulaye dama wujju xoolal ñaan des fois montage non c'est possible est-ce que loolu am na est-ce que montage boobu am na am na am na montage yooyu noonu am na

bu film bi génnee mënoo fexe ba xam ne fond vert li ngay wax nii dafa bi may yëpp que ne Titane yi xaw ma ci piscine lañ ko joué am dute nga ci benn yoon ak ni ma ko dundee woon yëpp ci cinéma Titanic Avenger Superman yooyu yëpp da nga koy vivre ba di jooy te c'est des trucs studio ci biir studio lañ ko pour pourtant ñoom même seen pochette film yi ay montage la yi nga xam ne da ngay yaakaar arrière plan boobu ça existe donc découper bopp nit def ci bopp keneen loolu moo gën a terre à terre ci infographie mais Sénégal looguñ suuf xaw ma ndax nangu naa da ngeen may laaj ndax photo yooyu montage la ou pas bu dee question boobu ngeen ma laaj ma tontu si. alaaj ma laaj ndax montage photo yi du montage. dëgg la c'est des <laughs> <laughs>

moo njëkk valoriser science. Mhm. waaw ñu ne xam-xam mooy njiital. lépp loo gis. dëgg la borom xam-xam bu mag bu nekk ci réew mi wax na ko. donc yu mel nii dafay baax ñun jeune génération bi ñu xam ko mais nag fi muy waxee mu am solo te ma ci appesantir mooy nañ fexe ba science boobu noonu ñu utiliser que ci li nga xam dafay jëriñ doomu aadama. Ah, parce que ni mi defaree noonu lay yàqee. Ah. c'est important nañu bàyyi fi mu yàqee ñu épouser idée madame le ministre. Ah mooy lépp lu ñuy def rek ñu positive dem ci je pense que c'est ce que ma veux ci li nga une contribution. bah justement pour dire la même chose que Pape parce que man franchement man je trouve qu'on a on a on a des hommes qui peuvent quand même utiliser à bon escient li mais les que le Sénégal mm-hmm. <laughs> on n'a pas une culture digitale. c'est mm-hmm. déplorable que des gens comme lui. on l'a pas encore bon ça aide un peu à, sensibiliser et puis voilà. D'accord. très bien madame madame la ministre pour euh, technologie high tech <laughs> euh, tous les lundis euh, il nous fait des surprises merveilles sensibiliser c'est vrai que utiliser iPad. je vais dire mes limites.

ne duma ma ci dugg duma ko laal parce que tellement dama barricadé wu tellement dama euh, bëggoon ne kii daal fu ma jaar rek lay wër. Mhm. ba léegi su ma ibbee benn WhatsApp une semaine rek dootuma si mën a wuyu xaw ma lan moo tax dootuma si mën a wuyu je ne comprends absolument rien. d'accord moi un téléphone pour moi damay woote di wuyu di SMS. Mhm. une tablette pour moi li ma siy bind laa ci xam lu ma ci soxla jëli ko lu may wër Google ma wër ko mais su ko weesoo yii nii yëpp daf may sonal. daf lay sonal.

côté boobu moom il faut que aussi tamit boo ñëwaatee. nga indi ñu danger yi. whatsapp bi moom semaine bii ñu génn li ñu wax lépp ci whatsapp bi ci lay jaar. waaw ah. d'accord c'est xam nga. war nga cee wax de. africain <laughs> africain bu sénégalais. Euh. moo xaw a ëppal. mais gis nga whatsapp ñi ko créé sax. Euh. ñoom. àgguñu si ñun fuñ ci àgg. <laughs> dañu am jot ñun. gis nga man personnellement ci WhatsApp gis naa si ñu si créer ay group créer si ay association créer si ay parti politique. par contre fi ngay dem gisee ñi nga xamante ni ñu ngi fay créer ay groupe yi nga xamante ni franchement parler pervertir rek lañ fi. lañ fi ah tu vois donc nit. club ci suñu xel ils utilisent ça d'une manière positive mmh. d'autres négative d'accord Abdoulaye donc pour terminer tu actu bi ñu euh, VR box voilà VR box bon je dis que Bini, vous avez la possibilité j'invite tout un chacun nga dem jënd ko parce que man depuis film la man sa de nga may la ko la jëndal bu la ci ay ci neex une réalité virtuelle. ci short carrément hein, ni ngay ni ngay bañee gis monde réel bi ni. Non ngay génnee ci monde réel bi da ngay plonger ci film bi à 100 d'accord très bien merci beaucoup euh, Abdoulaye high tech donc euh, comme tous les lundis muy avons ñu actualité high tech Tay nak vu doon waxtané mom moy euh, VR box la réalité virtuelle et aussi la réalité augmentée donc en cela nous vous proposons une page depuis beaucoup de defee ñu sur ce plateau. ngi nii grand la lii lan la ci bébé. waaw une bés bu bees tàq je viens fraîchement d'accoucher. nga ni lan bébé bu bees tàq. bébé mu tudd. Exina. album bu bees dix titres inédits jël ma sansa yu bees. waxuma yow rek ci xale. dégg nga yow rek ci bébé bu fraîche. xoolal style bu bees nag Queen bis na mbalaax. donc Queen danga may nax waay. wallaay lépp laa lay wax. kii loolu kañ lay génn. album bi le décembre lay génn Doubs. Sénégal yëpp nañ ma xaar. mën nga ma wax ku bëgg album bi nu muy def. waaw ku bëgg album bi da ngay woote au 77 143 60 60 mais nag dañ ci indi innovation de taille. ban boo wootee dañ leen yi école yi université yi société yi jardin d'enfants yi mag ndaw ñëpp ci biir ñu fekk si leen jaay leen CD Queen Bees biisu leen defat yéen benn séance snap Queen Bees in the house egsi naa bu bees snap attention attention TV et Orange vous présentent Noël avec la star internationale Maître Gims. Le 25 décembre se prépare le plus beau cadeau de l'année Maître Gims en concert live. Alors rendez-vous tous au monument de la Renaissance africaine à partir de 19h. Le 25 décembre, Maître Gims à Dakar, la Live Day. Entrée 10 000 francs, VIP 30 000 francs, espace lounge sur réservation. Info Infoline 78 225 17 17. Dixon TV et Orange. Maître Gims à Dakar. On est go la famille Fondé en 2011 au cœur du quartier du point E de Dakar, le concept de l'Institut de beauté Caresse a été pensé pour s'adapter au rythme d'une clientèle urbaine et pressée. craint de calme et de bien-être, vous y serez agréablement reçu pour une escale beauté du lundi au dimanche sans exception. La frénésie de la vie citadine s'y estompe, tout est conçu pour vous permettre de vous évader le temps d'un rendez-vous avec soi-même. Caresse, c'est aussi l'expertise et la qualité de conseil d'une équipe de maquilleuses, d'esthéticiennes, coiffeurs et coiffeuses professionnelles, formées et expérimentées pour répondre à vos attentes. Ceci nous permet aujourd'hui de mettre notre savoir-faire au service de votre beauté. Chez Caresse, seul compte le talent, la passion et la créativité. Caresse vous propose dans la partie Institut l'ensemble des soins traditionnels, soins du corps, soins du visage, beauté des mains et des pieds, épilation et sauna. Dans la partie coiffure, outre la qualité des prestations, l'équipe du salon est entièrement à votre écoute pour satisfaire toutes vos envies, le tout dans une ambiance très agréable. Chez Caresse, les produits utilisés sont choisis en fonction de votre type de peau. Les soins sont réalisés avec des gammes de produits conçus par des marques mondialement reconnues. Soins du corps, manucurie, maquillage, coiffure. Chez Caresse, l'attention portée à chaque détail signe la différence. Caresse, le bien-être, la beauté. êtes toujours nombreux à nous regarder sur les antennes de la DTV. Comme je vous l'avais dit tantôt, euh, vous êtes devenus les témoins vivants euh, de ce premier numéro de la semaine. ba ñuy sargal ñi nga xamante ne banlieue euh, Fadia Padoa Soprime, ak ñi nga xamante ñoo golf Guédiawaye di leen ne rek équipe dynamique bu TNT ñu ngi foofu ngir xool lépp li nga xamante jëm na ci décodeur ba ci ay abonnement boo leen soxla ay ndaw yu xarañ ñu ngi foofu ca rond point case ngir jàppale leen bu baax ndax dañu en beauté cette année 2016 donc di sargal ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy xel ci dtv wala dtv Sénégal cette application nga xam fo mun ti nekk rek mën nga ñoo sétane na xam nga ne nit dina nekk ci tata king dem dikk sënlon njaga njaay taxi clando particulier euh, ba ci taxi mën ñoo sétane grâce à cette application dtv Sénégal et bien sûr euh, nous euh, allons vers la deuxième actualité de l'internet toujours présentée par la sublime Adjara donc Serigne Mbaye Thiam veut faire entendre raison à Khalifa Sall et compagnie d'après Sénégal. Effectivement, l'Assemblée générale des secrétaires généraux de coordination du Parti socialiste PS euh, ont tenu samedi à la maison du parti, euh, servi de tribune pour appeler à l'autre les partisans et proches du maire de Dakar, Khalifa Sall, et ses soutiens invités à rentrer dans les rangs. S'il y a une minorité de camarades qui entretiennent des actions visant à saper l'unité du parti et se mettre en porte-à-faux euh, de cette décision, cette minorité de camarades entre, entendra raison, promet le respect responsable socialiste. d'accord très bien merci beaucoup Adjara pour la deuxième actualité de l'Internet. Pas pour Ousmane man bi dama am ah. pourquoi ñu moment que de nous def ñu ko euh, bu de ñu bëgg que ba de euh, nekk 2016 2017 euh, Serigne Mbaye nous am que bu de sama gis-gis ngi dem ci ay échéances 2017 dans quelques mois bu faites maintenant maintenir date Khalifa Sall jamais duñ def recul loolu moom politique moom bu fekkee Sénégal ni ñu miinee politique ñu koy xamee ñoom ñu jël li ñu jël ak leen ci fekk yëpp te jeexagul mbaate li mu jaay bu mujj duñ waat ginnaaw waxu Serigne Mbaye Thiam bi damaa jàpp ne da ko wax waxu tëx ku tëx waxu ku tëx nag moom xam nga mooy du def jeexital loolu analyse boobu laa maanaam premièrement politique da cee lax ndax ñuy dem ci échéance jàpp nañu xëy na boolee seen doole ñi ñuy gën a am ci nombre de député fa lay gën a sakkane mais boo waxee minorité damay jaaxal un Khalifa Sall bu fàtte ni ñaari yoon dem nañ fi élection locale on sait maintenant ce au niveau de Dakar rek boo jëlee euh, euh, élection yu mujj muy au conseil des collectivités territoriales ñetti sièges yi ñoom ñoo ko yóbbu boo yéene Dakar xëy na yeneen région yi mën la boo fàttalee ko local Yoff daal lañ mënul dara mooy Abdoulaye wone nañ seen bopp donc boo taxee na ñoon minorité ah xëy na minorité ci moom xëy na beneen définition la <laughs> mais minorité li ma xam moom du lii te bi ñuy mujjee def seen meeting bu mag bi fii nii medina gis nañ ñun drainer ci ay monde ñi fa ñëw ci ay coordination jóge fu nekk ci 45 départements yi gis nañ leen même bu fekkee peut-être ci chiffres yi moom duñ ci fier à 100 mais pour dire rek que ni Khalifa jamono ji il pèse quoi qu'on puisse dire même bu fekkee am na ay jafe-jafe ci parti socialiste et tout. Mm. mais on sait que ni parti socialiste tey ñaari entité là. ni favorable à Ousmane Tanor Dieng yaakaar ñoo nekk dëgg ñeneen ñi nga xam ñoom la ñu woowee Khalifa's Boys ñu ngi fi et il pèsent. Mm-hmm. quoi qu'on puisse dire nañ leen nangul seen suprématie boobu nag. Ah. maintenant nag maintenant ce qui est sûr et certain mooy élection législative yu ñu jëm ak présidentielle yu ñu jëm yu bëri du leen comme nous ñu ko waxee parti socialiste dañ nekk seen

jamono ji eh. xam o fan lañ taal ñoom jamono ji eh. comme booy tëgg combat eh. bu ñu ne signé nañ diggante diw contrat bi gis nga wax yooyu ñuy sànnante fa lañ maanaam ku nekk naan maa la mën mais demaguñ géew ba mais est-ce que xam nga laa xalaat comme 2017 ngi ñëw mm-hmm. te législative yi ngi ñëw mm. xam nga PS mënul xaar benn bopp kenn du ko ñaar ah bii de xaar nañ ko ñaar non non il faut ñu boole

à la question à savoir euh, ndax si seen parti bi euh, tey mën nañ espérer que ni li Senghor baye ba légui ñu ci jafando pour mu dem lu mu répondre rek moy que ni parti d'idée la ay débat d'idée day am tout temps si parti da ngay gis ni day am ay ay ay ay xuloo ak ay ki mais lu mu yag yag dañuy dajé hmm. mom lool la wax donc waaw lool la wax parce que tay da doon dem euh, ci fi nga xamanteni mom moy euh dans les dents de la mer vous ne musée euh, Léopold Sédar Senghor d'accord donc faut demander pour ressources. Nous, ñi dit ko comme nous pour. ressources en politique mm-hmm. donc justement nous nous Très bien, merci beaucoup pour la deuxième actualité de l'Internet. Man damay madame est-ce que l'État du Sénégal n'a pas raté euh, sa politique d'emploi des jeunes parce que à mon avis euh, on peut faire on peut on peut ça fait partie des causes vois, euh, vois, migration. affirmatif ndax l'état du Sénégal dafa raté sa politique ou pas ça ne sañuma ma pas def jugement mais li moment mën dire wax moy euh, tay damay profiter cette tribune bi def appel à deux types de personnes les épouses d'immigrés trois types épouses d'immigrés ñom la seen borom kër pour yónnee les mères d'immigrés bu je suis épouse d'immigrés Mariam Diouf je naa ko citer association nationale Les y immigré yi ñi des ci surtout euh, comme yaayu Bayam Diouf def appel aux Sénégalais euh, rapatriés retournés ou déçus parce que avons un type de boo xam ne dañ fi nous, suma ma leen appel pour ñu bokk ci réflexion bi nga xam ne ñun ñu koy au niveau de mon association Femidec Hamdan ma tàllal loxo nag état tàllal ko loxo mooy defal ko appel ci li ma laaj sànq ci financement des femmes parce que gis naa ministère de la famille euh, di joxe déjà jox na région de Dakar un milliard di joxe ci une région de l'intérieur 600 millions di ko séddale ay groupement féminin li ma ci xalaat man mooy région bu mel Dakar soo fi tijjee unité de confection bi ma wax sànq mën nga yóbbu 3000 personnes ñuy liggéey soo ci ubbee une unité de transformation de produits halieutiques diggante géej jëkk yéet ak loxo sa tuufa hmm. euh, mu jëm ci région de Thiès bi ay Joal ak yooyu nga ubbi une unité de transformation de produits locaux tels que des fruits et légumes def ay sirop ak yooyu cible ba ngay jaay ci produit yooyu ñuy lekk mooy sénégalais yi nekk bitim réew parce que tey indien yi leen koy jaay ak chinois yi mhm. ñoo leen di jaay géej gi di leen jaay cere yi di leen jaay laalo di leen jaay bisaab mhm. te fii lañ koy liggéeyee ci réew donc investissement par région yooyu état bi ibbi des unités de confection euh, des unités de cordonnerie à à Louga parce que ngaay fa la nekk defar ceinture defar dàll defar ay manam dooleel métier machine mais ay jeunes ñu ñëw dugg fofu di liggéey nga dans le monde ubbi ce corridor économique nga dem Tambacounda une menuiserie industrielle jeunes yi tamit pour chaque région du Sénégal nga set potentiel bi mu am ci gànjaxu boppam financement ngay jël ñu groupement féminin duñ ci parce que du ma jël nga def ko investissement de base pour ibbi unité que soo ko fait, c'est ñu actions. action yi hmm. les 52 sont pour l'État pour accompagner le processus les 49 pour nous faire ñu fay liggéey ñak jëriñu ku liggéey ñu système de financement mais mais mais veux gën dire ça. parce que comme je dis je ne je crée pas de demande je donne des solutions hmm. génn ci ben plateau ben soxna su bax ne ma li nga xam boko waxé lu muy ma nekk xanaa yow moomu di sama yaay nga kontaan ba xam ni. defuma rek politique pour def politique mais dama def politique parce dama am naa xam. alors président rek ci li ma doon def appel ñooñu. Mm. dama def appel ñooñu def appel emploi kon xam nga man jox naa solution emploi joxe naa solution mooy ñooñu ñëpp mën nañoo liggéey. est-ce que c'est faisable. mais mi ah, li ma la wax tek na kay amul setalma ma. wax naa la fuñ koy defé parce que taxawal unité wax naa la luñ koy defé euh, ko par la laaj wax naa la fuñ koy jaay khalis la laaj. 1 milliard lañ jox Dakar. 1 mm. milliard buñ ci ubbé unité de confection loo bëgg. ah vraiment machine quatre vingt francs lay jar. <laughs> machine quatre-vingt-dix képp lay jar. ak machine am non yii ñëw piqueuse yi ñaw ah, parce que c'est-à-dire man je ne parle de rien d'extraordinaire. je parle de choses simples. simples je parle de chemise de pantalon de short li nit ñi di sol mom lañ liggéeyul. Mm. loolu lañ deful suñu réew tu prends 600 millions boo ko defee ci coordonnerie fële ca ca Ngaye Mexe jox ko waa Ngaye nga xool lañ soxla ci machine danañ ko am te danañ former yeneen jeunes ci coordonnerie te dinañ ubbi yeneen corridor yoo xam ni parce que ñun suñu avenir c'est l'artisanat mm-hmm.

Je la batay Sénégal dama ne la li jigen ñi di liggéey nañ ko jaay Sénégal de l'extérieur Les produits artisanaux yi xam nga fuñ ko yóbbu ci mhm. benn réew bu États-Unis mhm. ci afro-américains mhm. ils ont la Thanksgiving kenn ku nekk da ngay bëgg un article fait en Afrique noire ci sa kër tous les afro-américains le jour de la Thanksgiving et tous les ans américains yi wax nañ ko ba sonn amuñu ko leen ko la Black History Month chaque américain veut un produit africain d'accord alors bu may damay jeexal rek ci appel <laughs> boobu ma doon def pour fournir dernière question Pape Ousmane pour fournir l'emploi parce que emploi des jeunes nga ma laaj donc tout ça ça des emplois non seulement des jeunes mais des épouses d'émigrés parce que émigrés yi li leen sonnal ba tax ñu am difficulté c'est parce que seen soxna yi léegi téléphone beeg WhatsApp beeg laaj bi dafa tax chaque semaine nga laaj dara sa borom kër ah. mais soo mënee am looy def di ci dund te kër gi kooku su amee cinq ans dina dajale tax mu mën a ñib si mais koo xam ne semaine bu jot ñu laajte li nga jot taataan mhm. doo mën a ñib si parce que doo dajale dara te soo ñëwee ñu ne da mujjee si gànnaaw Rufisque bi nga dëkk waaw aussi nga ñàmbaas si ñaari baat mhm. ca nga fa def ak naka nga fas tax taxawee liggéey bi foofu <laughs> mais bu gënee yaatu Sénégal ñan nga xalaata nii xëy na buñ la sollicité wala ànd ak yow. Mhm. di nga mën a liggéey ak ñoom. liggéey bi moom Sénégal moo ko moom li ma présenté Femidec fii présenté wu ma pour Tëngéej kese mais bi may wax Ibrahima Faye au téléphone barki démb di ko wax ne ko na ngeen xool émission bi. Euh, moom sa immigré de retour la maa ngi koy nuyu waale au passage di nuyu ñoom Mbaye Ndiaye Wade immigré de retour yooyu mhm. di nuyu les jeunes comme Soukhouba ñi nga xam ne ñoo nekk ci tefes gi mhm. te signature yi nga xam ne moom la ñu def ci accord de pêche tax amatuñu ci géej gi dara luñu luñ jumtukaayoo te ma joxoon leen fi ay gaal ñoom ñooñu mhm. jox leen ay moteur jox leen ay mbaal GAL, gu nekk di personnes mu nekk ñetti gaal ba tax na tam xarit bu jot depuis que ma suis fa en tant que maire je ya nekk diggante ak but yëpp <laughs> dañ fay joxe xaalis di wax ne madame le maire moo leen ko jox parce que le fruit du travail que j'avais laissé là-bas bi may du fisc est fa bàyyi woon euh, li nga xam ne nii moom l'égalité des chances hmm. élève bu nekk pendant sept ans parmi mes 21 000 enfants amoon une blouse avec une trousse complète bi sur toute l'année pendant sept ans donc égalité de chance à l'école doomu buur la ko blouse Sénégal école privée de école publique mmh. Khalifa Sall je man ci aéroport ba tu fais ma fierté tu as été socialiste et tu restes jeune socialiste. Eh, ma am am contentement maître sur contentement. les financements des femmes bi fait def à Rufisque des budget mais 20 millions de doon jox famille, ma ciy nuyu waa Ndeppe di nuyu les coiffeuses des nuyu les marieuses di nuyu tamit femmes yi nga xam ne ñooy couturières yi. d'accord parce que ñooñu ñëpp jox nañ leen financement non remboursable. Mhm. bu tax tey ñu développé liggéey ba nga xam ne moom la ñuy liggéey. très bien jàkka yi nag ak mhm. jumaa yi. Mhm. maa ngi jot ñaan yi. alhamdulilah parce que waxoon naa ni euh, jumaa ju nekk Rufisque Est chaque année am nga 1 million. jàkk ju nekk Rufisque Est chaque année am nga 500000. parce que mbuus mi ñu daan yor di ci laaj juróomi dërëm ak ñaar dërëm moo ma xawoon a soof. Hmm. ma di leen jox subvention annuelle. Hmm. bëri nañu ci dale seen i jàkk bëri nañu ci caloré bëri amul malaanu wasifa mu ñu fay lal te duñu ma tëjee mbaa ñu tëjee ma ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm parce que ba démb rek imam Abdoul Aziz Ndoye mu ma koy wax waaye imam Baye Ndiallo Seck mm-hmm. mi ngi may naan xanaa li fi nekkoon dafay newatul am lan moo xew <laughs> d'accord très bien merci beaucoup en tout cas mu nekk rek une ébauche parce que def nañ fa jërëjëf kontaan nañu bu baax ça a été un euh, euh, grand plaisir de l'avoir euh, sur notre plateau toi-même tu sais vrai que ndaanaan bu ne dafay ñëw ngir ñu waxtaane waaye tey gën nañ koo yëg Pape Ousmane ci échange courage ci li nga xamante ne euh, moom mooy innové donc ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax madame Ngone Ndoye ñu bàyyi alaaji Saala Bigué Ndiaye mu jox ñu notre leçon du jour jërëjëf Nicolas leçon du jour dafa am benn écrit boo xam ne fa la suñu borom bokk hmm? muy écrit muñ la yàlla suñu borom bokk fas naaru góor dafa jóg bàkku daw ba àll ba la ñaxal yëkkati ñaari tànk ci kanam ni maa fi ëpp doole góor goo xam ni romb na waxambaane àggagul ci màgget yéeg ci kawam dañal ko dafa def ko nu ko te ko ni ko maa lépp doole góor googu taxaw mbërum làmb jege ci làmb ji léew toog moroom moom dóor ko mu daanu mu jóg taxaw ni waa ji maa lépp doole góor gi ne ko maa lépp doole mbërum làmb ma dem ca kër ga soxna ci xool ko mu xool ko rek soxna si lamsal mu daanu ki dóor mu daanu ak ki ñu lamsal mu daanu ñoom ñaar ko ëpp doole jigéen ñi ni ko maa lépp doole jigéen ku ko ëpp doole liir bu weex liir bu weex soxna si dafa yor liir bu weex mu tëdd ba la nelaw papa ñu ne ko jugal ànd ak sa doom génn ci biti tànk doole eh, jigéen dëgg jooju liir bi boobu kan moo këpp kan moo kan kan moo këpp doole na nelaw ni ko maa lépp doole mhm. nelaw lan moo këpp doole soxla bu faj <laughs> boo amee soxla mhm. faj ba faj munoo munoo kii doo nelaw waaye nag soxla bu fajul lan moo gën a lan lan moo këpp doole mhm. muñ muñ te écrit boobu fa la yàlla bokk moo tax ki la gën muñ moo la gën yàlla moo ne inna allaha maa saabiriin yàlla way muñ yàlla àndal gars yi nañ leen muñ te xam ni lu jot rek yàlla def ko très bien merci beaucoup Alla euh, Badona bonne nuit euh, c'était Aladji Sall Bigue Ndiaye mi comme ni mu koy tàmm di defee la leçon du jour en tout cas merci beaucoup de votre fidélité d'avoir choisi la DTV c'est toujours dans toi même tu sais plus loin plus haut plus fort tous ensemble euh, léegi dañuy ànd ak Modou Mbacké Niang ci xibaaru mbarax yi Leewtoo ci kanam di ngeen ko am ci DTV mu bokk ci programme yi nous vous souhaitons de passer une excellente soirée à demain 17h 19h bonsoir sant yàlla waaw maa ngi nuyu ñu fi ne ñëpp di ñu ñu ne si salle bi ma fekk ñëpp man maa ngi tudd Thiatou Yoff maa ngi si 24 ans am naa 8 combats 8 victoire sama 9 combat laa jëm maa franc te dinaa ko daan jëlee bu leer nañ incha allah. franc la bu parcelle mbooloo maa ngi nekk écurie parcelle mbooloo waaw maa ngi am 4 4 maa ngi dajeeg Thiatou Yoff. mbokk yi bis baa ngi noonu le 25 lay doon stade Iba Mar Diop lay doon kadalo leen indil Jax production moom moo del siwaat ci stade Iba Mar caatu yoofu la jël boole kook franc ñu ni drapeau kan Pape Sagna Mbaye ak ñu ni kan Jax ndax fa ngay yem Jax ni yem ma fond dama jëli kan dama jëli Jackson boole kook kàngam kooku mooy kan drapeau du jaan jekko doomi jekko ji dama jëli kan les seniors boole kook météo jël Papa Yadd boole kook Pape boole kook Dame Suguer menn mi la jël boole kook Reus suufoo boole kooku nag kay mel mi Modou Baye Fall numéro 2 boole